bokk yi gannaaw bu nu sante sunu boroom lan ca man doonte mënuñu koo sant lam ja yoo ci cant di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonte mënuñoo def lam ja yoo lépp ci julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal na nu yàlla boole jëkkal di fàttalante gannaaw buñ ci jiitale sunu bopp ñu gën a fab sunu tànk teg ko fa ko sunu borom teglu ndax kat ku ko fa teg bu ko teggiwut tabaraka wa taala dana ko soppal boppam te bëgg buur nag buur bëgg laa ko gën moo wax ci alxuraan ne ku teg tànkam jéem a matal xaq yi war diggante mag moom te teggiwu ko yàlla dana ko xëccal boppam soppal ko boppam man bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin subhanahu wa taala nag bi mu ñuy bind dafa amoon mbir mu rëy mu màgg mu tax nu binduñu leeral na ko ci alxuraan ne bindul asamaan ak suuf ak li na ci diggante bi te ñun foofu la ñuy dund baatila wa maa xalaqna as-samaa wal arda ma baynahuma baatila baatil mooy fo ak neenal waxtu kese loo gis mu bind ko lu mu tuuti tuuti ci sab gis moo la rëy ci sab gis ba mënoo koo peeg ci sa ay loxo ci ay yoxo wala ci gis xamoo fu mu yam ñoo yam fa moom nee na amu ci leen lu mu bind te dara taxul mu bind ko lu ne daa am tax mu bind ko nun nag ñoo ci raw dafa wax ak ñun ne mbaa du yéen ñi ci ay nit da ngeen ne defe ne dama leen doon bind rek am temps nii rek di dessin ba mu soob ko mu def ci accro muy dem ak a dikk déedéet nañ xam ne dafa am taxoon ñu bind ñu te ëllëg daf ñuy dajalewaat ñu ñëpp rek lewaat ko ba mu ne coow afa xasibtum mbaa du da ngeen a jort ne annama xalaqnaakum abasa wa annakum ilayna la turjaun fa taala allahu almaliku alxaq yàlla jommante naag loola amul kooku jot nee na it li na ci as diggante asmaan ak suuf si ngeen li ngeen gis ak li ngeen gisu lu mu tuuti tuuti ak lu mu rëy rëy ci seenu gis bindu ko rek te am jot tax wala muy fo baat boobu la jëfandikoo nee na li tax mu bind ko lu wér la lu am lu muy tekki bu ëllëgee waaye nag ñu baree bari ña ko ca xamul jéemuñ ca xam dara ña ko ca xamit dañ ca teg seen tànk wa maa xalaqna as-samaawaati wal arda wa maa baynahuma laa'ibiin maa xalaqnaahuma illa bil haqqi walakinna aktharahum laa ya'lamuun nee na su fekkonte ne daa jublu am jot nii rek di bind kenn du ko dàq ndax ñi koy def ñépp moo leen bind law aradna an nattaxida lahwan lattaxadnaahu min ladunna in kunna faa'iliin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag leeral ko am na ku mu doon waar xadis boobu abdullahi ibn abbas moo ko nettali nee na ko juróom yi na nga fexe ba lu ca nekk nga màng ko màng mooy li ñuy def weeru koor woor lépp nee na ko juróomi ngi ni yoo xam ne na nga fexe ba yu ca lu ca nekk nga feesal ko del màng lépp jël lépp ba ca jiitu soo doonee ndaw xamal ne ndaw loo gis ak mag a nga koy dàq te dana ko jot nga gaaw loo ca mën nga gaaw def ko bala màggata dikk ak wér goo gis ak wéree di ko topp di ko dàq te dana ko jot boo wéree gaawal def la nga war a def waaye alal akum koom mu néew mu bari it na nga xam ne ñàkk nga koy dàq dana ko jot boroom dana fa jóge wala loolu jeex ci kanam boroom kon gaawal loo ca war a def nga gaaw def ko ca waaye am jot it ñàkk jot nga koy dàq dana ko jot fexeel ba jamono bi ngay am jot loo war a def nga def ko boo tolloo ci jàng nga jàng soo tolloo ci wut métier nga wut métier soo tolloo ci liggéey nga liggéey waaye it dund lu mu neex neex dee nga koy dàq dana ko jot fexeel ba sa dund gi nga xam ne dañ la ko abal képp am na fu muy tàmbalee am fu muy yem diggante bi nga koy defee nag te doo ndaw amuk wér amus tuut amuk jot gaawal feesal waxtu yooyu yépp ba mu fees dell ndax lu ci dem kat duutu ñëw ak ndaw da ngay dégg ku naan ñun ndaw ñi te fekk lii fi mu toll kenn magatu ko ndax nit ki su xasee ba am kër kër ci waxi nit ku ñuul mooy soxna rawati mu am doom kenn magatu ko su jàppee ne ci ndaw ñi la bokk mi ngi nax ko waaye koo xam ne it daa amus tuut xëntewu lu dul mu dolli ko kese kese kese kese kese na xam ne ñàkk ngi ñëw ci kanam tuuti moom ci boppam dana dem ba ñàkk alal di ñu di ko séddale ginnaawam waaye ak wérit ku ko am na xam ne nit du ko dëkkee mën naa yàgg nag waaye nis tuuti ñu tàmbali ko wekkil ay gëñ su boobaa dootu mën a yee lan daan yee léegi tey suy xool day ngannu ngannu mooy da koy jege lool mu settantal ko door caa xam tuuti kon jamono ba muy am ay gët nañ xool la mu war a xool la ca raw alxuraan ak i bokk ak la niroog moom ci ay azkar waaye jamono bi muy am jotit rikk bu mu ko jeexal ci ay caaxaan ndax miir bu ca dem du su dellu si loolu nag moo bari ci suñu jamono fan yee génn nañ benn aw këyit di ci jàngat nekkeenu réew mi nee nañ li ëpp ci seeni waxtu lañ koy lekk ak di ko nelaw ak di ko toog di waxtaan kese loolu nag yonent bi jàngale woon na ci sallallahu alayhi wa sallam ixtanim xamsan qabla xams moom la suñu mag bi way ci téeram boobu ñu tuddee al tasawur sirar ila jinaanillahi dil anhaar ci juróomi bayit yent yi mooy xadis bi benn bi daf ci julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtanimu xamsan qubayla al xamsi kama bihi amara xayrul insi alayhi afdalu salaatin bi salaam fi aalihi wa saxbihi lxurri lkiraam awaluha alshabaabu qabla alharami awaluha alshabaabu qabla alharami wa mithluhu alsixatu qabla alsaqam thaalisuha alginaau qabla alfaqri thumma alfaraagu qabla suglin yasri xaamisuha alxayaatu qabla al mawti fa saariu lil xayri qabla al fawti foofu mu tënk bayit yépp dikkante leen fu ci waaye toll mu fexe ba raw cay moroomam balaa moo weesu fa saariu lil xayri qabla al fawti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ca ni ñaar a ngi nii ñoo xam ne cat dugg na leen cat ci wax nit ku ñëw mooy ku amug wér defu ci dara ba ak wér dikkal waaye ku am ak jot lu ne mu mën koo xam ci jàng ko jàngu ko ba amatul jotam bokk yi amul mel na mag mu réccu wut lu teewoon mu jàng nangam lu teewoon mu xam nangam la ko warloon mooy ba mu amee jot ci leneen la nekkoon ba loola weesu la ko weesal nag mooy fan yi ñoo ñëw guddeeg bëccëg ay dikk di weesu di dem di dem di dem da koy gën di tële ba faaw kon bokk ku ca toll na gaaw bañ a def soxlaam réseaux sociaux yi kese kese wala grand place yi kese kese wala déglu ci kese kese nangam wala seetaan nangam yoo xam ne du ca jële dara yow mun a xam lii nee na la waxtu mooy loo xam ne bu ca jógee buñ ko laaj loo ca buñ ko laajee loo ca amee du ko xam buñ ko ne loo ca yaakaar du ko xam benn kenn ci waroom xam-xam yi nee na moom ni mu gisee nit ñi dafa mel ne seen jamono dañ koy taxañ taxañ bu gaaw bu yéeme cig neen dañuy mel ne ku dugg ci luy dem wata la saxaar la gaal la walla avion la daal di fay sos ab grand place ñuy waxtaan di xaaxataay ba ba ñuy àgg te amul bagage ci saxaar gi amu ci amu ko ci oto bi amu ko ci avion bi amu ko ci gaal bi dugg na daal nit ñëpp waroom bagage moom te lu ñu te lu ñu waxtaan ndax bañ koy laata yéegal sonn nañ te ñu ngay xalaat bu ñu koy wàcce waaye moom day yéeg noonu loxoy keseem mbooloo mu tàmbalee nelaw mu dem ci meneen ba ba muy àgg du yóbbu dara du wàcc ko yan ñu la mu sox ndax nee na bu dee bëccëg bi nelaw lañ koy wéttilee ak dem ci jay grand place bu tax ñu dem ci feneen añ bu buñ udd ñu raxas kudd yoor bu booba jeexee ñu dem ci keneen su guddi jotee noona topp fast food yi ñenn ñu naan fast food topp restaurant yi topp cafetière yi fi ñu jaay café yi ak fi ñu jaay tàngana yi rek du jënd du puus du paas waaye day wékkilikoo nit ñi rek ba tëri jot mu tëdd mu tëdd ña doon liggéey moom ca garab ca foofee mu toogoon moom bu ñu wàccee dañuy dem nelaw bu ñu xëyee xëyaat fekk denc nañ dara waaye moom denc dara mooy neenal waxtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku yàlla jox yaar yooyu muy ak wér jox ko ak jot ba noppi mu tayal ci jaamu yàlla saa bu ñuy wax ak jaamu yàlla wala ñu woote mu defee ne bokku ca nee na kooku cat dugg na ko te mooy ko perte perte gu rëy te kat yàlla dana ko laaj ëllëg wéram googee ak jotam googee ndax nee na nit du seqi ab tànk bis pénc te yàlla laaju ko ay yëf bokk na ca sa dund gi ci loo ko jeexal waaw ba ngay doon ndaw ci loo jeexal sa ndaw ci loo doon loo doon liggéey loo doon jàng keneen koo xam ne ku jàng nit ñi la yàlla xamal ko ca lu lu mu xamalut ñu bari nee na sànq waxtu moo gën a metti fuuf dee ñu ne ko dé lu ko waral mu ne sànq waxtu day dog diggante nit ki ak yowmal xiyaama ak yàlla day dog diggante nit ki ak yàlla te ku digganteem ak yàlla dog digganteem ak àllaaxira dog ndax du bàyyi xel ëllëg dara day def ne lépp fii la yam waaye nee na sànq waxtu waaw dana daal dina dee moom li muy def nit ku ne xam na ko day dox digganteem ak àdduna kese da koy faat ay programme am jeex rek waaye lee moom sànq waxtu moom lu tax mu gën a metti dee fuuf moom day dog li doxoon diggante jaam bi ak yàlla ndax yàlla woote du tax mu bàyyi lam doon def day metti ci am day metti ci am xelam metti ci aw yaramam léeg-léeg nga dégg ñu nodd am na ñoo xam ne dañuy kaf di ko wax waaye gëmuñu ko lay wane ne gëmuñu ko mooy bu julli jotee ñu dem julli ci waaye da ngay dégg ñuy noddu am koo xam ne moom gëm na ko naan fii kenn mënu fee def dara ak ak nodd te moo ne su maandu amoon noddu moomee aw turam nekku ci aw santam nekku ci dañ naan ñi bëgg seen diggante yàlla di dox ñëw leen ñi bëgg a jariñu ëllëg ñëw leen hayya ala salaati hayya ala falaa waaye day metti ci ab xolam day metti ci moom waaye dee moom ku ne xam na ko ñëpp ko gëm ñëpp ko gëm ndax làkk woo dem dee am na ci lu mu tudd noo xam ne saa bu ñu ko waxee ñu xam ne du mbokkum kenn ci nit ñi am na keneen ko wax ne ku jeexal dundam gi ba mu jeex tàkk te fàttali ko wut fu mu mas a nit fu mu mas a fayee nit njekk fay njekk njekk nag ka ci gën a yelloo ci fay ko mooy suñu borom mooy li ëpp ci dundam gi jaamuwu ko yàlla li ëpp ci wereem gi jaamuwu ko yàlla li ëpp ci ndawam gi jaamuwu ci yàlla li ëpp ci àllam gi jaamuwu ci yàlla ba xëy xëy na pëng wala boog li ëpp ci dundam jeexalu ko ci dox farata farata yi ci jiitu mooy farata suñu borom yi wala boog saa su nekk mi ngi jéem a taxawal lu nit ñi jariñoo ëllëg te yow nangu ko wala boog saa su nekk mi ngi dem di gëstu ji. lu koy gën a wan aw yoon wu muy jaar ba mën a jaamu yàlla digganteem ak yàlla di dox nee na yooyu comme daaw ci ak dundam lor na ah bisam yow yi mu dund adduna dana fa layoo moom ëllëg ndax bis yi loolu taxutoon yàlla jox ko si Abdullah ibn Mas'ud nee na bu amee lu muy la ci dundam mooy bis bu jant bi fenk ba so lam ciy rëccu mooy xam na ne bis manqué na ci ak dundam xool na xool xamut lu mu def tey ji loo xam ne defu ko woon démb nee na loolu lay rëccu kooku ku ne xam na ne day jàngale waaye ma ngay liggéey koo xam ne jant bu sot jant bu fenk ba soo mu def xayma lu mu yendoo kooku ma ngay dox waaye koo xam ne day jàpp ne jóge gu fi rek ndax ay moromam a ngi fi saa boo waxee mu ne diw ma mag bu kooku faatoo bu ñu ko yàgg moom maasoo mooy déedéet dañ ko waxee woon noonu waaye moom a jiitu tuuti defe ne moom ku fi sax la déedéet bokk yi nag koo xam ne kon li ëpp ci ay waxtoom mi ngi koy jeexal ci lu mu xamul lu mu doon wala ay caaxaan na delluwaat gannaaw ndax suñu borom nee na bu kenn naagu ci ne lam nekkoon dara mënatu caa baax ba tax jur muy wàññeeku wa inni la gafaarun liman taaba wa amana wa amila saalihan thumma ihtada ni ñuy delloo gannaaw nag ci lu ni mel mooy dox nit ku dox ba yàgg mu joggi ci xalu ndéef yaatuwaay ba ak tàngaay wa kenn du ko ne tegga sa tànk bii te it fu muy xoolaat fu muy tega tànk mi fu muy xool lay doon ba mu wóor ko ni fii xalu ndéef nekkaatu fa ne noonu la ñuy tuube kon yàlla indiwuñu fi ndax daa am jot rek déedéet yàlla binduñu itam ndax daa am jot kese kese kon suñu dund po ak waxtu yu neen waru ca ëpp jamono bi ñuy doon ndaw nañ gaaw balaa màggatal nga dikk ndax màggat na koy dàq dana ko jot jamono bi ñuy wér nañ gaaw ndax wéri dañ koy dàq dàq dana ko jot jamono bi ñuy am astuut nañ ca gaaw def ca lañ ca war a def ndax ñàkk nga koy dab dàq sa ne ko jot jamono bi ñuy am ak jotit nañ gaaw balaa jote dee dikk luñ ca war a def ñu def ko ca waaye loolu lépp nag ak dund ko ëmb ak dund googu yi nañ gaaw xam ne yàlla indi wuñu fi ngir ay caaxaan daf ñuy attewaat ëllëg te fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya koo xam ne dañ koo peeseel mu fees de dell tabarkalla rek waaye nag wa amma man xafat mawazinuhu fa ummuhu haawiya yal nañu ci yàlla musal koo xam ne nit ñi dañuy jël aw jiw mu ne cell ñu dem ruuj mu ne cell ñu ji mu ne cell di xoole ñu raadu bayaat ba mu ñor bañ badd li ba yóbbu si kër ga ba tere taxaw ñuy jaay di peese am na ku doon jàngale ne buy piis it bëgg ku ko fay am pes moo ko fay moo ko koy wax kon boobu dund gi lu ñu yàlla abal la te suñu bilan Mbakke nee na woon lu la yàlla jox ci xaritam la ko jële te ginnaaw tegu na ci sa loxo mi ngi seet loxo yu ko tegaat nañ gaawantu fexe ba li ëpp suñuy wax fi ñu ko dóole ci ni ko yàlla bëggee tey seet nañ ko bëggee ñun ak ñam nam ñu nam ñu noppale kase kase yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina